ko ngi setan Sen Smart TV ñoo ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di contane ci ñep ah, di leen wax ne ti baal nañu ak bal nañ leen yaa nañu suñu borom boole jéggal ñu téwé ko ay déwéni déwén di ñaanal kilifa gi muy borom daara Noreyni ibnu Cheikh Ousmane mbake Noreyni ya na suñu borom yagal ko suñu kanam te bu and ak wër ak njabot gi ñep waye di ñaanal tamit wa keur Cheikh Ahmadou Kara mbake Noreyni bu baaxa baax di ñaanal ñep ah maa ngi toog jorin eh, Omar suñu papa suñu suñu suñu jëwrin ñu fas yéene ko dénk micro bi ñu daal di waxtaan ak moom si màggal gi ak sëriñ bi jëwrin Omar maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la bàyyi nga nuyonteeg mbokku téléspectateur yi ñuy seetaan si seen Smart TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah. auzu bi kalimatillahi taama min sharri ma xalaq bismillahi lazi laa yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa samiun alim بسم الله الهنان بسم الله المنان بسم الله البرهان بسم الله الستار بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله بارك برم دار نورين نيجي نيو أسن سمارت تي في ينيب واحد قال دي جس تخوي برفت بيجن أمتي مغلقي دلنا دكتور دلنا ما سيجونه نحجز نبوب بلقي دان كييكتغو كوي جين خمن تنيني أندونين كم تغوك جونه غير من كوفير إيفن ما بيجن خمن تنيني def naa képp ku fi ñoo xam ni eh, lu yéeme woon la kon ñu ngi leen di delloo nuyoo di ko delloo seen ay téléspectateurs yëpp di leen wax euh, di leen ginnaaw bi ñu leen souhaité woon la bienvenue à Chicorée ñu transmettre leen les vifs remerciements de la commission communication bi nga xamante ni moom moo chargé wu lépp lu jëm ci wàllu communication sëriñ bi ak kuréelu Seydina Ousmane Bakka Noreyni di daara ju mag ji asalaamaaleykum. Amar maanaam tey lan nga ñu mën a wax si màggal naka nga gisee magal gi naka nga gisee mbooloo mi ah wax dëgg yàlla chaque année gis nañ ne mbooloo mi mbokk taalibe dañuy gën a bëri si màggal gi aca naka ngeen dundee màggal gi waaw màggal gi moom xanaa sant suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ni ci katanam ak coobaram la suñu borom dogalee ñu fekk ko si jàmm du pexe kenn si kàttanu suñu borom la si ndimbal ak yërmande suñu borom lañ ko dunde si tawfeexu suñu borom lañ waxee alhamdulilah rabbil alamin màggal gi nag événement la woon boo xamante ni defe naa euh, décrire ko doon na jafe ndax dafa euh, yéeme woon lool lool lool nit ñi defe naa lu jiitu benn fan di fukki fan ak ñeent ci Chaban di 7 mars ba bés bi nga xamante ne nii mooy dem ba 8 mars bitu màggal gi ba tey daanaka gan yi nit ñi ñu ngi bàyyeekoo woon fu nekk ñëwoon fi mu nekkoon euh, rendez-vous bu mag ndax mbokk taal bi xam naa namoon nañ sëriñ bi ndax bi mu dellusee see si tukkeem bi xawoon na yàgg tuuti Dakar bu mu dellu see mu tompeek màggal gi moo tax daanaka gis nañ ni daal wax dëgg yàlla teewaay bi moom yaatu woon na foo ko natt wees woon na ko. jërëjëf Amath doguma la foofu waaye sëriñ bi dafa dafa jàppoon yoon ñibbisi ñëw ndakaaru ngir noppale ko mais boo xoolee saa su ne mbokku taaliba yi dañuy gën a ñëw en masse diwaanam foofu di ko ziar boo xoolee mu ñibbisiwaat ci noppal boobu ba léegi mi ngi si coono boobu sëriñ bi. dëgg la waaw sëriñ bi moom xam nga il est toujours au service de l'humain moom li ko ñor mooy wala xat karam naa bani aadama mooy mooy mooy mooy insaaniye bi doomi aadama bi moo ko ñor fu waaye nit mën a bàyyee ko dafa ma mas wax ne ma ma ne ko mbàkke eh, sonn nga de ndax duñ la bàyyi nga dallu tuuti mun ma naka la nit ñi di bàyyee seen i kër bàyyi seen i soxla ñëw toog fii di ma xaar may man ma man ma mën a def leneen mu ne lu ma sonn sonn sonn faw ma ñëw te defe naa bis la ñu nekkoon Dakar mën nañ seede loolu amul benn bis boo xamante ni sëñ bi du recevoir entre mille deux cent huit cent et mille deux cent personnes par jour defe naa loolu kéemtaan la ndax euh, daanaka saal yëpp day fees kër gi day fees euh, waxtu bu nekk ba trois heures quatre heures du matin la yeewi gan yi loolu ba pare li ci gën a yéeme li ci gën a yéeme mooy ku si nekk yëg tëgg ci war si jëmm ju nekk dana la déglu temps boo ko jëlal dana la déglu maanaam déglu sa problème déglu sa ay jafe-jafe déglu sa yëgte waxtaan ci ak yow kon sëriñ bi maanaam dimension humaine bi man mooy déjà kéemtaan gi mooy mooy mooy baatin li gën a rëy ñu wax ay baatin ak yooyu yëpp dëgg la waaye li gën a rëy ci ak baatinam mooy la dimension humaine naka la nit mënee du toog pendant ay jours dëkke ko ay mois ay at di recevoir mbooloo mënu toll te du feeñ si yow si ak soppeeku benn yoon loolu kéemtaan la loolu kéemtaanu suñu borom la loolu bokk na si moxjisaat yi ma gën a yéem wax wër na Serigne Touba maanaam teewlu gi dal gi yaatal gi ubbeeku gi nga xamante ne mi ngi koy am ci mbokku taalibe yi quel que soit par ailleurs lan mooy seen yëgte quel que soit par ailleurs lan mooy seen comportement ak nu ñu mën a doxee moom xajoo na ñëpp yaatal na ñëpp safoo na ñëpp am na yëgte si ñëpp kon ñun jaaraama borom daaru noonu ne lañ koy a wax. Amar euh, ñu gis maanaam saa ne bu màggal gi ñëwee comme lendemain màggal bi bu dañuy gis ne sëñ bi mooy génn di recevoir nit ñi waaye tey euh, ki nga xam ne mooy mooy Cheikh Ousmane la gis muy recevoir lu waral lool. waaw xam nga euh, li ma leen di jox tegtal bi gën a gàtt euh, dafa bokk ci management gis nga Serigne Touba Xaadim Rasul bi muy yoon ni borom daaru ndar wala mu koy liggéeyloo wala mu defoon ko mu nekkoon soo représentant vis-à-vis de l'autorité coloniale di jëflante ak ñoom bàyyiwul ba dem ni ko suma fi nekkulee nga def ko jamono ji fi nekk la ko doon sant mu koy teewal devant toutes les autorités ba ñëpp nangu autorité wu borom darul moti ci diggante ñëpp ñu mu fay teewal Serigne Touba. lolo waral bi fi Serigne Touba jógee amul won jafé jafé ñu mu ko ko représenter parce que ndax ki ko doon représenter ci téwaye mo ko représenter ci auto bi Serigne bi it liggéey bi fi mu toll actuellement Serigne bi. ak quelque soit par ailleurs yéeneem ak ak ak ak bëgg-bëggam faaw ñu yaatal ko maanaam looloo waral njabootu boppam gi nga xamante ne nii Seydina Ousmane Mbacke nooree ni ñu koy ñaanal suñu borom gën ko dëgëral Serigne Modou Mbacke ñu koy ñaanal suñu borom gën ko taxawu ñu mat sëkk nag lu ñu doon ndax fi ñu war a jaar ba dooni mbër la ñu jaar du dañu sant Mbacke wala borom daaru seen wéjur waaye fi kilifa war a jaar ci ak ndawam ba fi seen mag foofu suñu borom sëriñ bi dogal na tàggat nañ leen jaaral nañ leen foofu yaru nañ jàng nañ xam nañ am nañ ay teggin am nañu ko woyof am nañu dal te te te te te butéel bu nekk la mu def rek la kubéer gay xeeñ la ci ñoom boo leen xoolee yow ak seen wéyjur amul benn différence la ci borom daaru Noreyni moo ci sëñ Modou Mbacke moom mooy ci Cheikh Ousmane Mbacke Noreyni. ayca oh, sëñ naa euh, amoon naa yéene nag ñu gën a ñu gën a wéyale li nga xam ne mooy waxtaan bi waaye li li ma koy tegee mooy euh, lan ngay dénk ndaw ñi mbokk taalibe yi muy sikoriyee yi di mbokk taalibe yi di yi di bàkkat yi di di mbokk taalibe yëpp yan conseil nga dinaa ñëw ci conseil bi waaye soo ma ko may damay indi benn comme fourchette la occasion la benn lu ndaw rek boo xam dañ koy def un rappel mooy que li ñu jóge mooy lan màggal daarul mooti magal daarul mooti mooy bés bi nga xamante ne budul woon Serigne Touba ak Thierno dañ cee daje budul woon Serigne Touba daf cee gane àdduna sax bés la boo xamante ne umma islam yëpp daf dañ koy dañ koy màggal. guddi gi nga xamante ne mooy bu ñu nee suba la mars mooy la nuit du 7 mars au 8 mars. bokk na ci taarixul islam yonent yi eh, ñu nettali ko Buxaari indi ci ay xadis Jibril alayhi salaam moo fekk yonent bi muy dallu mu fëgg ko ni ko këpp këpp mu ni ko suñu borom nee na teral na la ci guddi gi teraanga goo xamante ni amul teraanga ju ñu toll xoolal asamaan mu siggi xool malaaka bu naan di woote ana kan moo amoon ay bàkkaar ba mu fees dell mu ñëw mu tuub ñu jéggal ko meneen ko di ko feelu ci beneen asamaan naan ko ana kan moo la yàlla dogaloon gàtt wërsëg si moom mu ñaan suñu borom def décret divin soppi si moom soppi gàtt wërsëg gi defal ko euh, defal ko wërsëg bu yaatu ak ana kan moo mu ana kan moo anakan moo yëg teguwaay mën a am suñu borom day day quitter palais quitter résidence am wàcc ba premier asamaan bi gën a suufee di fëgg jàmm yi di leen laaj leen ban soxla ngeen am ma faj ko guddig màggal daaru loolu la ci suñu borom sëriñ Tuubaa gane ci àdduna kon doyaat na suñu ñu màggal ko waaye borom daarul moo ti ñeenti fan ci weeru baraxlu bi sëriñ tubaa ñibbisee ba fukki fan ak juróom yi bi ñuy daje muy bés bi nga xamante ne moom la sëriñ tubaa dajewaat ak Cerno ginnaaw ba mu ko dénkee liggéey bu mag bi mu doon bés boobu noonu nga mooy bés bi ñuy màggal te sëriñ Fallou Mbacke ñu jàppoon ko te ku nekk xam naa ni booy booy jënd ku am njëg booy jaay ku am njëg ngay jaay booy booy maye ku la neex ngay may waaye booy denk ki nga wóolu ngay dénk sëriñ Tuubaa nag Cerno Ibra Faatale dénkoon njaboot gi kon ñun ñu am tawfeexu bés boobu noonu di suñu bésu màggal ñu ciy santaat suñu borom subhaanahu wa taala kon ci loolu la ñuy pëtaxlu maanaam répondre sa question borom daaru nóoré ni benn message la am moom il est constant la sëriñ Tuubaa waxoon ci nuru daare ni wasahad liya dahra bi anni muminun wa muhsin wa udminu je suis constant ci bëgg gi mu bëgg yàlla ak sellal gi ak jaamu yàlla gi borom daaru noonu la demee benn message la am na ndaw ñi jàngi na ndaw ñi liggéeyi na ndaw ñi di jaamu yàlla farlu ci xam-xam te fonk seen ay waajur message bi lii la amul leneen ndax moom li mu bëgg mooy ñun ñu doon de ñu doon ay modèle yu inspiré d'autres modèles parce que ñun suñu model borom Daaru Noreyni du Marcus Garvey du Mahatma Gandhi du du du Roosevelt du kenn ñun du jëggaane lu ñu am fii ñun suñu modèle borom daaru nooree ne la lu ñu doon suñun bañ ko gëmee suñun ba nit ñi foog yaakaar lu rëy suñun moom moo ko def suñun kon moom dañ koy jaajëfee xam ne ndaw ñi buñ ko bëggee delloo njukkal moom tamit nañu fexe ba njàqare ak tiis gi seen wëy jër daan am bu ñu daan wax naan damay dem jébbalu ji wala damay dem dugg ci yoonu nangam amatuñ ko sa borom daaru waajur yi ñoom ñoo ñu ànd ak seen doom dénk leen borom daaru te bu jëkk da nga gis waajur dañ daan dem fu ne di ñaanlu pour seen i doom bañ a jébbalu ji sëriñ si waaye léegi waajur yi ñooy taal seen oto ñëw ba si fii yendu ci naaj bi si poussière bi ci ci àll bu xonq bi ñëw ni ko denk naa la sama njabar loolu nag yaakaar boobu yàlla ba ko suñu borom tas yàlla na ko wàcce barke bi ci réewum Sénégal yëpp ñu si profité di woo ñëpp ñu def un appel au calme ak un appel vraiment à la lucidité di woo askan bi ndaw ñeeg ñëpp ñu ànd ak dal te xam ne jamono ji ñu toll lépp ak dal mën na ko lijjanti bu ñu nee tekk rek tekk dinañu wan yoon ku nekk sañ ngaa euh, maanaam am sa xalaat am sa bëgg-bëgg waaye nañu bàyyi xel li nga xamante ni moom moo ñu boole ñu ñëpp muy réewum Sénégal ñu xam ni ak euh, maanaam yoon bu yàgg la lu jiitu mu yegg si fii na ko ñun ñëpp sàmm incha allah te defe loolu la ñu sëriñ bi jërë ngeen jëf mbokk yi ah lii lañ leen indiloon si waxtaan bi nga xamante ne nii ah, jëwriñ Ousmane wala jëwriñ Omar waxtaan na ko ñi nga xamante ne nii mooy mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax seen Smart nag ñu leen ko waxee rek saa su ne muy màggal gi lendemain màggal bi lépp li nga xamante ne ni dina am si dëkk bi dinañ leen ko wan bu neexee yàlla ñun suñu suñu mbégte mooy saa su ne ñu di leen di bégal kon léegi-léegi lay doon ak seen Smart di gërëm tam bu baax a baax waa Ngor TV ñoo ngi leen di bu baax a baax di siyaar ndaama ah, Kamb moo nekkoon si cadrage bi dañoo jot ndigal te ndigal Sëriñ Tuubaa dafa doon bi laa tafalu seen bi xëy na isbi am murit yellul ci moom muy def dara te àndu ceeg ndigal ndigal borom daaru noonu ni nag mooy Seydina Ousmane Mbacke ibnu borom daarul mooti bu Seydina Ousmane Mbacke borom daarul mooti moom la sëriñ bi jox ndigal mu yewi gal yi la ca maam moo ca doom la ca doom mooy ci doom te la ca maam mooy wàcc ba ci sët dara wuutalewu koog bàyyam kon Abdou Maté na ko sëkk sëriñ bi moo jox ndigal mu ñaanal mbokk taalibe yëpp saa borom faj aajo yëpp mu yeewi jotaay yëpp yeewi daara yëpp gars yi delluwaat si activité yëpp ku am siyaar mu ñëw mu jottale ko ko mu jottale ko sëriñ bi incha allah jërëjëf